évasion bu yees moo am ca maison d'arrêt de correction bu Ziguinchor ab détenu bi nga xamante ne mu ngi cosaanoo ca Guinée Bissau te ñu jàpp ko tëj ko ci prison bu Ziguinchor moo daal di rëcc ci prison bi niki tey ci suba si ci ay jamono 10 heures bu ñu sukkandiku ci sunu ay source détenu bi nga xamante ne mu ngi uyoo ci tuuxu Madina Ñaabali dafa jaare toilette bi daal di tëb li nga xamante ne moo di mur bu prison bi jamono ji nag service de sécurité yi ñu ngi koy wër bu baax a baax ca biir Ziguinchor ginnaaw xamante modi question bi autorité pénitentiaire yi ñom japp nañu ni duñu yey yabbi ci mbir mi wayé li leer ba leer nañu japp ni la évasion nekkul bu maison d'arrêt de correction bu Ziguinchor ndax ñu ngi ku ci atum 2015 évasion bi nga xamante ne am ba fukk ak ben détenu daal di rëcc kasso bi benen bi nga xamante amna am bu yagul dara ci atum 2020 ben détenu bi nga xamante mom dañ ko testé won mu positif ci coronavirus momit it jotoon naa bu Siggi Cokkam Encore une évasion à la maison d'arrêt et de correction de Ziganchor. En effet, un détenu de nationalité bissau-guinéenne a réussi à s'échapper de prison ce lundi aux environs de 10 heures. Selon des sources bien renseignées, le détenu répondant au nom de Madina Nyabali a escaladé le mur de la prison à partir des toilettes. Présentement, il est activement recherché par les services de sécurité. Interpellé sur la question, les autorités pénitentiaires ont jugé nécessaire de ne point se prononcer sur cette affaire. Tout comme tout fait, il faut rappeler que cette évasion de prisonniers à la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor ne constitue pas une première. L'on se rappelle encore de celle survenue en 2015 avec l'évasion de 11 détenus et la plus récente en 2020, année à laquelle un détenu testé positif à la COVID-19 s'était évadé.